nguur gi hmm. dinañ xaw a jaxasoo seen ñoom i neen seen biir hmm. dina am télé bu mag boo xamante ne maanaam site bu mag la loolu sax waxoon naa ko si beneen télé balaa ma koy wax si seen télé télé boobu hmm. bu defut attention dinañ ko yéen yéen boo xamante ne dinañ nangu lii nga xamante ne moom moo tax askan bi toog di koy seetaan te dinañ bi mooy nangu signalam nangu li nga xamante ne moom mooy waral mu mun a doxal te du doxal mais nag bu yàlla dogalee xaw ma nag fu mu mujjee mais bu yàlla dogalee mu négocier ba yàlla dogal mu delluwaat si signalam mhm. maa ngi koy ñaan si barke Seexu Tijaan bi nga xamante ne moom lañ bokk télé mhm. boobu dama dafa bokk man damaa bokk ak moom mhm. date ay taalibe seex lañ te ay taalibe ñaseen lañ amaan na nag julit ak julit laa leen di ñaan ki nga xam ne mooy directeur yi télé bi tëj bi jeexagut de Walfadjri tëj bi jeexagut dafa des te bii ñëw mooy gën a métti mais bu soobee suñ borom maanaam bu bu fekkee ne dégg na ma na fexe boo dajale juróom-ñaar juróom-ñaar téeméeri juróom-ñaar téeméeri basmala. Hmm. mu wóor juróom-ñaari xale yoo xam ne jàng nañ alxuraan ñu jàngal leen juróom-ñaari basmala bind juróom-ñaar téeméeri basmala ba pare bindal ko juróom-ñaar téeméeri basmala xale bu nekk da koy partagé basmala ba juróom-ñaar téeméeru xale bu fekkee juróom-ñaar téeméeri xale yooyu mënut nekk mu 17 xale diset juróom euh, set mooy fukk ak juróom-ñaar. Hmm. xale mu partagé leen juróom-ñaar téeméeri basmala ñu jàngal ko ko ba pare bindal ko juróom-ñaar téeméeri basmala moom mu fexe ba def ko si juróomi butel. Hmm. mu fexe ba ñawee ko ak yére bu weex bu ma ko mënoon a gis dama koy wax du secret lay doon man ak moom mais lii du secret lii waxu yàlla la te dama ko gëstu gëstuwaat ko xam li ne si biir. Hmm. parce que xam-xam yu bari seq nañu wal fajri mais wax naa la ne mbir mi d foofu. mbir mi si yaqin la mbir mi si baatin la te am na ñu ko yàlla jox lii na ma ko defal bu ma ko defalee barke Seydina Mohamed waxu waxuma la Macky Sall de mhm. képp kuy ñëwaat si kaw suuf wal fajiri lu mu mun di wax si kaw suuf mun mun munatuñ koo tëj munatuñoo nangu signal boobu mhm. ma ñëwaat si lii nga xam ne mooy xew si réew mi muy muy muy wàllum actualité ma gàttal rek wàllum actualité bi nga mhm. xam mooy xew si réew mi bu tax bakkan yi ji di xam nga da ngaa mm-hmm. man dam man limu ma lim limalu ma la woon dama la waxoon ne dina am ñu bëri ñoo xamante ne dinañ génn àddina ay ndaw la ñu doon te deret tuur deret bi jeexagul. Mm-hmm. nag lépp si jàmm lay mujjee mais képp ku nekk si diaspora bi xeeb Sénégal wala nga gis li nekk Sénégal neexu la barke Seydina Mohamed préparé say bagage préparé say sac bañ a evertir Europe Amérique Asie ak fu mu mun a doon. Mm-hmm. nga bañ a investir foofu te nga xam ne Sénégal lii ma gis ci Sénégal si kanam ñetti at ci kanam. Mhm. képp ku nekk Europe te li nekkoon Sénégal tax nga dem di nga ñib si waat te Sénégal dina naat dina naat naataange boo xamante ne yàgg naa leen koy wax. Mhm. dina mel noo xamante ne képp ku nekk Europe di nga si waat. ah kon kay alhamdulilah yàlla na gaaw ñëw loxoy wóor mhm. koy jël day betti ñëpp ki koy jël. xoolal day betti ñëpp kenn du ko ko foogee bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu jëlee candidat yi. biñ jëlee candidat yi kenn foogee wu leen ko mhm. maanaam candidat yi candidat yi kii moo koy jël kii moo koy jël ñi wax ne dem nañ kenn foogee wu leen ko mais mu ngi si biir ki koy jël kenn kenn du ko ko foogee te si loxo yi wóor lay dem fii ba balaa deux mille vingt neuf Sénégal day mel melokaan boo xamante ne wallahi lazim képp ku nekk Europe mu fekk la foofu boo ñëwee fii da ngay mhm. kon dèjà lii gis man li ma bëgg mhm. maanaam Macky yóbbu nañu foo xamante ne dema dema dema dema dem ba war a tijji porte yi nga xamante ne mooy porte ngaataate mooy porte ndam si moom bu ëllëgee bu demee mu nekk pouvoir bu rafet si moom mu nekk woy bu rafet mais dafa am leneen loo xamante ne mu ngi si biir man saltigi Waly Diouf sango maar li ma woon mhm. man bu ma sañoon man man bu ma sañoon man Macky Sall moom si boppam mhm. na tëggaat élection yi bu saytoo li muy saytu ba pare ba mu leer ko mhm. na tëggaat élection yi élection képp ku ku ne na bokk ku nekk na bokk mais loxo yi ñu foog ne mooy jël réew mi kooku kooku du jël réew mi kii jël réew mi ba léegi laa la wax ni vidéo mu ngi tàkk mhm. te bu Amadou boobu tamit bu ma déggee wax wax leen ko saltigi Waly Diouf nee na sa bidiw doomi aadama bu koy jéem a fay fii ba deux mille vingt six yow yaay fay képp ku yóbbu turu Amadou Ba si si Serigne wala nga yóbbu turu Déthié Fall si Serigne yow yaa yow Déthié Fall dina dina lekk sa dina lekk sa sarax wala Amadou Ba dina lekk sa sarax ñaari nit ñooñu seen i bidéw jamono bi ñu toll nii daa tàng jir kenn du ko laal kon dèjà jamono bi ñu toll nii Amadou Ba bu ko saytaane jay nga bu ko Iblis jay hmm. ba moom mu fexe boo jël maanaam wax waxi nit ñi wala wax boo xamante ne bu ëllëgee da koy reeral ba mu bàyyi Macky Sall gannaaw fa mu hmm. teg tànkam na fa teg tànkam am na lu tuuti rek moo ko dese diggante ak Macky Sall buñ tegee élection yi buñ tegee élection yi lépp lu ci war saka mu jël ko moom daje moom daje faal moom daje faal ñi sans ñaar ñii la gisuma kenn ñaar ñii daal la ma yàlla woon si ñaar ñii laa nekkoon tamit joxuñu ma ma lekk joxuñu ma ma naan mbokk du mbokk Amadou Ba du mbokk daje faal kenn mosu ñëw sama kër kenn mosu ma jox ñaar dërëm te chaque jour dama koy wax devant la public ñu koy dégg joxuñu ma dërëm hmm. mais biddiw la buy bu may saytu di ñaanal nag lii nii lii mu sedd guy ñu bàyyi xeex bi mhm. bàyyi lakk-lakk bi man damaa yaakaar ne booy xeexal sa réew mhm. ñun Sénégal lu bari xeju fi ngir ngir ngir sëriñ si wala yi fi tëdd sëriñ fi tëdd te suuf si tàngoor tàngoor bi muy tàng si jamono ñu toll nii mhm. yaa ngi ciy laalaale ñeneen ñoo xamante ne jamono buñ toll ku respecté sa waajur wala nga respecté wala yi fi tëdd doo taal réew mi seen bopp nag la ñu taal lu ñu def rek seen kaw lay kopp nañ xeex violence non violence la ñu war a xeexee non violence jéem a waxtaan ak njiitu réew mi ñu xam ne population bi ñoo ko fi teg population bi bu ñu demee boo wax ne keneen lañ soxla na joxe si jàmm ak salaan jox fi teg ko si loxo yu wóor teg ko si loxo yu wóor nag maanaam nekkul ne moom moo moo mooy mooy jël suñ suñu Sénégal teg ko si loxo yu wóor si noo xamante ne maanaam dafay mel ni buur buy folli buy fal di folli déedéet na tëgg élection yi ku war a bokk bokk ki koy jël ki ki ko war a jël guñ ko saytoo ñu ne leen kii moo koy jël mu jël ko si jàmm ak salaam yóbbu Sénégal ci naataange bi yu ma gis si deux mille vingt quatre ba deux mille vingt six ba deux mille vingt neuf bu neexee yàlla. Hmm. waaw lii daal Sangomar woon na ma ko fan yi hmm. mais mais mais mais daal. Euh, ah. jàmm daal jàmm daal dina am kon si gàttal. dina. ma ne kon daal mën nañ jot ne jàmm daal dina am si gàttal. ndax dina lan dina am jàmm. jàmm dina am Sénégal laa fii ak boobu noonu. bu soobee barke Seydina Mohamed. wallahi la azim xoolal. Hmm. képp koo xamante ne xam xamoon nga li ma xam tey. yow doo xeex ba sa di say des. Hmm. dinañ doxal noo violence jéem a jéem a dajaloo ñoom ñëpp jéem a dajaloo ñoom ñëpp ñu waxtaan def def def def jaar jaar boo xamante ne du am xeex du am lakk bagas yi jàmbur ñoo xamante seen yoon ne ko ci. Hmm. loolu dinañ ko jéem a bàyyi yow ki marché bi ngay lakk kër gi ngay lakk la oto jàmbur bi ngay lakk leneen li ngay lakk violence loolu dafa am ñu waaliyaan si te bokkuñu si mbir mi. dafa am ñoo xamante ne affaire banditisme la ñuy def dafa am ñoo xamante ne bu ñu bu ñu waxee ne Sonko lañ bëgg wala ñuy Macky Sall wala keneen la bëgg dañuy fen du dëgg li ñuy def ni teguñ ko fen nañ bàyyi bagages yi jàmbur yi ñuy yàq bagages yi jàmbur ñuy yàq du yàgg ba Macky Sall jox seeni borom alal du yàgg ba Sonko yëkkati alal jox ko seeni i borom nañ fexe ba jéem a waxtaan ak ki nga xam ne mooy njiitu réew mi mu doxal yoon yoon bi mooy lan mu mu usaay bu mbiram jeexee mu tëggee élection yi si jàmm ak képp ku war a dem dem man loolu laa gëm mais lii ñuy def nii du dëgg di yoon lii du xeex sa réew lii xamadi la yaradeku ñàkk a xam sa bopp ñàkk a xam ni ngay xeexalee sa réew ñun du ñu duñu duñu guinéen duñu malien duñu ñu états-unis dëkkuñu feneen sénégal lañ dëkk ay wali wa ay wali wa fi ne dañoo xamadi dëkkuñ ko fenn man saltigi Waly Diouf maa leen ko wax xamuñu dara dañoo xamadi ba pare seen njàng soriwul mhm. képp koo xamante ne yaakaaree la ndekki yaakaaree wuñ la reer yow yaay dem fee di jaay sa bakkan Mmh, mmh, dañoo xamati mais mmh, buñ la yaakaaree ndekkee grèce ay njaboot di lay xaar si ginnaaw duñ duñ la kii ñi si dee Sénégal buy neex duñ leen ko nettali fan fan lañ koy yëgee de xanaa yomal xiyaam lañ koy yëgee ban sens la am amul njëriñ non violence dox jaarale ko si yoon sinon li leen di dal seen kaw lay dal waxoon naa leen ko day sedd guy Sénégal jàmm kese lay am si wallahi la azim si jàmm lay mujjee waaw jërëjëf ok merci mu ngi noonu euh, jërëjëf wàll la euh,